maanakum min shuraka jooju moo nekk sóoratu Room sóoratu Nisaa itam dafa am mim maamalakat ay maanakum min fatayaatikumul muminaat moom it min jeeg maama dañ koy tàqale waaye min maamalakat bokkut ak boobu rek dañ koy tàqale moom niki min maamalakat ay maanakum fakaatibuhum ci sóoratu Nuuri moom mim maaja danga koy taqale yaari moom rek ngay bindut te ku ñaarale nga sàdd ko wa mim ma mim ma ba fusilat takalef nako fil munafiqin suratul munafiqin mimma rasaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut lay wax suratul munafiqin neena min jang mama dang koy takale wa hmm way bind min bind ma yoy rek moy wara takale bu ko yoy rek mom dang koy takale def yari mim rek te saddu ñaaral bil qat'i nek na ci am am lu man xalaqna and ak man xalaqna tay bëgg wax am yi nga xamne dañu and ak man muy am man te so di bind ci alquran da bind am muy mara nga tek ci man ñu Amman ko bokku na ca am man xalaqna ci suratu safat ahumu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tunin lazib lolu lay wax ngay bind am muy mara nga tek ci man ñu ak usisa ak amman ji an usisa amman usisa ho ci soro tawbati mo bin am ba nopi tam tek ci man ñu tekkali ko wa fusilat tekkaleef nako mum amman batay fi fus fi fusilat ci sura tafsil amman yaati aminan yawmal qiyamati lo bind am tak ca man ñu takaliko lolou mi soro tafsil wa fi nisa suratu nisa suratu nisa amna amman yakunu halihim wakilan am am da ngay am tak ca man ñu takale ko lim la wax ci yoy moy am man ñu takale ci alquran lu wessu rek mom boko di bind dang koy takale moy da ngay bind rek am man jo xamne ngay bind am sa tek ci mim gu sad rek ak na la am man way yi rek mo ci wara takale ko wa annama annama maqtuxatan mbir mi lu ñu dog ah, mbir mi lu ñu teqale xarfaani yaari baat la fi suratul xaj ci xaj wa fi luqmaan ak ci luqmaan nee na annama yaa am yaari ci alxuraan yoo xam ne boo koy bind ngay bind anna door bind maa anna ji numéro lay doon ma teqale ko maami benn mu suratul xaj mooy annama tadduxoona min doonihi huwal baatilu bi luqman batay moy an anna ma tadhuna min duni hil baatilu waaw yaari an yoy da ngeen tekkale ma ma len top bu de ci hajj bu dee luqman yu wess yoy da ngay teqale da an je ak mama moy do bu nu nara ngay def nun rek ak ma moy anna ma lu bokku te yaayu dal wa anna ma ghanimtumu ci waalamu anna ma ghanimtumu jaasat dagan na bu fasli ci teqale anna ma ghanimtumu min shay'in fa anna lillahi xumusa loolu lay wax nee na kooku li ci gën a siiwtu say boo def ko moom mooy jokkale gi mooy ni ko bindee annama nga bindee ko noonu moo gën waaye nee na bu la neexee tàggale ko tàggale gi mooy nga bind anna ba noppi noonu nara nga teg ca maa waaye nag ni ñu ko bindee fii rek say boo di ko bindee noonu ndax loolu moo ci siiw wama xinda ak bu àndee ak xinda kazaalika ni fi naxli suuratu naxli innama xindallahi huwa xayrun in kuntum taalamoon maa indakum yan fat xam ne jooje lay wax innama jooje da nga koy jokkale ndax mu ni nag ñu waxee ci annama xanimtum bu la neexee def inna muy nu nara nga teg ca maa waaye li gën rek moom mooy nga jokkale ko ni nga ana annama mooy nga jokkale ko innama jooje ba yàq taxawoon danañu dog innama innama min qabli tooxa doona ci njëkk tooxa doona fii sóorat anaami saaru lan xaam waaw nee na am na inna maa joo xam daa nekk saar la na soo koy bind nga mu nu nara nga teg ca maa te bañ koo jokkale mooy inna maa tuuxadoona la aatin wa maa antum bi mu'jizina yooyu la wax ci lan xam ngay teqale inna jeeg maa boobu dong rek moom la ñuy tàggale lu bokk te yooyu boo dee bindati rek nga taqale ko bul def nu nara ngay def inna jeeg maa mi ñu taqaloo rek mu tomb rek ak maa mu ñëw ci nekk ci alxuraan yoo xam ne dañ leen di tàggale bind kullu boole teg ca maa leen taqale yooyu lay njëkkee taxu leen a bari mu ne min kulli maa sa altumoohu min Ibrahim fus la tàggaleef na ko min kulli maa sa altumoohu wa in ta'uddu ni'matallahi lay wax yéen nga def min kulli muy lamara nga teg loolu mooy ci ibra soot ibrahim wa qabla jaa ummatan ak njëkk jaa ummatan ma soot muminun boo demee kullama jaa ummatan rasuluha kazzabuhu lay wax kulla jaag maama da nga leen di tàggale nga bind kulla muy lamara nga teg ci maanag mu teqale ko moom aw ruddoo ilaa aw ruddoo ilaa day wax bi nekk soorut nisaa kullama ruddoo ilal fitnati urkisoo fiha moom da nga koy teqale nga def kulla muy lamara nga teg ci maanag ñu bañ a waxul fu xaatee ni wuute yi la yaar ruy ya net leef na ko leen yaar yi mu la wax léegi ci kullama jaa ummatan ak kullama ruy am na wuute waaye wuute gi bul ko faale li ñu li ñu njëkk wax rek jàpp ko mooy moom da leen di tàggale du leen taqale waxab la ulqiya ak ci njëkk ulqiya maanaam boo demee sóoratul mulki kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum xasanatuha jàppal ne lu ci gën mooy danga koy taqale mooy dañuy jàppaloo am na wuute waaye lu ci gën a wóor mooy day jàppaloo wa daxalat ummatun ak daxal ummatun maanaam kullama daxalat ummatun laxanat uxtaha ci laxaraaf lay wax moom itam jàppal ne taqale ga mu gën a am na wuute sax waaye li gën a wóor mooy nga bind kullaak maa yëpp ñu ànd bu ko def lamara moo kullama alxiya fiha fawjun ñooyemoo yëpp rek ngay bind kun la mu ànd ak ma te buñ ko def lamara wuté bu lu ko faale faslu li ak dogla la fi xatxi laamil jar ci dag jar ga han ma doxooli yoon la mu da am laamuk jar go xam day nek li mo lam andal da nga lim tàggale moy nang koy def lamara mu lam lam sosal wa ma li dane waqtax dagal dagam ci daan ci werante mali hadha mali hadha mali haulay ak mali haulay xam nga mali hadha rasuli ana lu ñal bi la yonante rek la won bu doon suñu nu bop rek ci arab mom lam gi mok hadha ñu taxalo mom lam gi rek la ay ci alquran nga bind mali muy lamara nga tek hadha ñu taxaliko batay mali haulay qawmi ana lu ñal ñu le nit bu doon suñu nu bop rek mom binu arab mom nga def rek laam mu taqal mu taqaloog alkubeer gi bu dee ci alxuraan da ngay bind maali muy lamara nga teg ci xawla yi nag ñu taqale ko ñoom ñaar maalil lazina maalil lazina itam dafa jublu fa maalil lazina kafaroo qibalaka muhtiina jooju nekk ci suuratu maarij maalil jooju moog allazina ji ba tey doo taqale li ji ak allazina ngay bind maali laam gi nekk lamara nga door a bind nag allazina ñu tàggale ko na nga dagg ulaayika humoo ulaayika humoo ak allazina ko fekk ci alquran ulaayika ji ak hum ji am ñu taqaloo da nga koy tàggale allazina hum foo ko fekk ci alquran allazina ji ak hum ji am ñu genn taqaloo ñaari baal di tàggale ko le max yow ma hum ànd ak yuftanoona baarisoona ak baarisoona nee na yow ma hum yuftanoona ak yow ma hum fa laa yax faa dañ koy tàqale maanaam yow ma jeeg hum ji kenn du ko tàqale ngay bind yow nga teg ci hum moo xam xalan naari moo ci topp moo xam baarisoona moo ci topp kenn kenn du tàqale muy mu yow ma ji ak alkubar gi ci hum dañ koy tàqale waxay suma xay suma fusi na ko wa laa taxiina manaasin ak laa taxiina manaasin waaw dafa wax ne xaytu ma kuntum ji nga xam ne moo nekk ci saaru baqara xaytu ak maaja danga koy teqale maami loo ko jokk ci ay suji wa xaytu ma kuntum fa walloo wujuhakum naasin da ngay bind laata door a bind xiina ñu taqali ko waaye doo def laata xiina rek maanaam ta ji nga taqali ko xaalongu gi teewul nag am am dagan na moo tax mu ne wajaasa dagan na an toosala bu dee jokk ko fii uxraahumaa ci ki mujj ñoom ñaar laata xëy na moo mujj moom lay wax naa bu la neexee boo ko bind moom nga taqaleel taatomb gi ak xaalonk gi muy benn baat waaye nag lu mooy nga taqale ko rek ni ñu ko wax. iqtax daggal xaalab na umma xaalab na umma ibna umma innal qawma stadhafuuni ci laaraaf lay wax dama bind ibna minu nara nga tek ci umma te bañ te bañ a nun gi ci imna du ko taqaleeg amsa bi ci umma wasim na nga jokale umma yab na umma manam yab na ji nun gi ci yab ji ak umma xam nga yab umma yo sama doom lay la umma mu ne bul bind yab na nu nara ba ci umma de ngay takale yab ji ak umma ji wa hmm. tax wasil na nga takale moy na nga jokale yab umma wa nihimma ak nihimma nihimma dafa doonoon ni ama baxna ma wer waaye boo koy bind nga jël miim gi ci ni'ma jox ko ci maama sadda ko mu dal doon ni'ma ñu taqaloo kon na nga ko jokk rubama rubama yawaddu lazina kafaru baa bi des na ko sadda des na ko bañ a sadda waaye ruba jeeg maama dañ koy taqale day bi def rubama waaye bul def ruba war def maa dañ koy taqale ñoom ñaar halumma ak halumma halumma ilayna wala yaatul ba'sa lay wax kooku moom nekkutoon sax xal ak umma xaluma benn baat la rek bul defe ne kon xal ji daa war a taqale ko ma déedéet moom ni ñu ko bindee rek da nga ko war a taqale mooy daa war a war sim na nga rëdd na nga rëdd alifan alif fi yeb na umma ci yeb na umma bërëb boo bokk na ci bërëb yi sëñ Mbàkke bu sa wax ne ne nga jàpp ko bu baax bokk na ci yi mu wuteeg kaamil yi sow yi maanaam yëpp na umma dane da nga fay bindaale alif mooy boo defee yaa da nga cee alif doo def abbu waaye loolu bu ko jàpp boo xoolee téere yi ngay jàng rek alif googu amu fi gannaaw yaa ngi mun baare baare moo ci topp nga mas ko ab mu yeb na umma waaw yeb na umma laa taaxus bi yet yi boo demee ba di ko xool doo fa gis alif ci moo li ngay jàng fii ci soow moom dana yow bind fa alif kamaanu mii ni ki askaneef ko ilaa mushafi xusmaan jëm ci kaamilu xusmaan nee na am na nettali bu wér bu wax ne boo xoolee kaamilu xusmaan ba bind nañ ci alif googu waaye nettali boobu ko jàpp jàpp ak baari ba alif di fa nekk te boo xool téere yi ngay jàng it noonu lay mel fasil na nga jokkale ay nama ay nama fil bikri ci saaru baqara wan nisaa yi ak sóoratu nisaa wan naxli ak saaru naxli wal axsaabi ak saaru laxsaab wal xayru lu bokkut te loolu rek fasila tàggaleef na ko nee na ay nama am na ci yoo xam ne moom da ngay taqale ay na jeeg maam yi nga xam ne ay na ji ab tomb lay doon rek maam yi sës ci niki fa ay nama tuwallu fa tàmma wajhullaay moo nekk saaru baqara kooku da koy taqale ay nama takunu yudrikumul mawtu boobu it dañ koy taqale ay nama yuwajjihu laayaati bi xayrin moom dang koy taqale ay nama suqifoo ridoo wa qutiloo taqtilan ca laxsaab moom it da nga koy taqale ba weesoo yent yi nag moom boo gisati rek nga taggale ko nga bind ay na nunu nara nga war caa ma waaye bu dee yent yi moom da koy taqale mu ne nag wa xarfayil ahsaabi ñaari baati waxar fay nisaay ñaari baati nisaa wa laxsaabeeg laxsaab rawaahuma nettali na leen ak daaniyu al imaamu bi do ci wuute waaw nee bee ñu weesu ci nisaa nag muy ay namaa takkoon yu dikkumul mawtu ak ba nekk laxsaab muy ay namaa suqifoo uxusoo wa qutiloo taqtilan nee na yooyu yaar daal da caa nettali wuute ñee wax taqale ga ñee wax tàggale ga waaye jàppul wax bi wax bi ñu njëkk wax rek mooy taqale moom moom da jàppal loola moo gën a dëgër wa xilaafun ak wuute jëkki rek tuddeef na ko xan xum ci ay dan fii ay namaa ci ay namaa allati ba nga xam ne ata dikk na fi shuhara yi saaru shuhara nee na boo demee shuhara ay namaa kuntum taabudoona min doonillaahi hal yansuroonakum aw yantasiroon boobu lay wax nee na ay na boobee maama dañ caa wuute ndax danga koy tàggale am na nga koy taqale wax bi gën a wóor mooy da koy tàggale ngay bind ay na ba noppi teg ca ma yooyu wax mu gën a wóor allan ma sil na nga jokkale allan allan bi kahfin ci kahf sóoru kahf wa fi xiyaama ak ci sóoru xiyaama ba xaduxumaa nekk ni seen gannaaw naj xala naj xala ma xisaama ànd ak xisaama nee na allan naj xala lakku moo xidan an ak lan la woon an ak lan waaye foofu dañ koy taqale mooy de ñun kenn ko bind dañ koy def sàdd rek noonu dañuy bàyyi dañ doy dañ doy la sàdd gi ci laam gi rek def allan nu mu ko séen ci téere bi ngay jàng rek waaye kenn def an muy nun ba noppi nga def lan yaa dong la ci alxuraan benn bi mooy allan naj'ala lakum maw'idan ci kafa fi ak allan najma xizaama ci suuratul xiyaama lu weesu yooyu yaar boo ko bindati ci alxuraan bu bokk te yaari nga bind an muy nun la nga doon def lan fas mu benn dogo war sim nga rëdd li kay akhir al ahsab ci mujug ahsab wal hajj ak ci mujug hajj wal hadith ak ci mujug hadith min dal bay mbok ci bele buntu manam mbok ci li ñu jokkale la bëgg wax mbok ci li ngay takale dalay dalay wax likay kay laaj nga xamni so gude bind kay ji dang koy takale ak laaj nga xamni ñaar tom ngay bind takale ci la neena li la yakuna halayka harajun mo nek ci lahsab bu def likay yanara do la def la dere da ngay def ñaar tom rek takale ci laaj dañu wara and ba demee ci xaj li kay laa yaalama min bahdi hilmin patay non la da ngay takale kay laaj bo demee hadid li kay la ta'saw ala ma fatakum ta'saw lañ wax ci orsh waye da ngay takale kay laaj wal khulfu wote ga fil nasi nek na ci ba nga xamni ata dik na filali ci ali imran waye dutti sal borom la hal asah ci wax ju ñene bo ñu ci ali imran am na li kay laa taxsanoo ala ma faatakum li kay laa boobu nee na dañ cee ci da ngay def li kay bu yenar nga teg ci laa am na koy taqale def ñaar togg taqale ca laa li gën a mooy da koy taqale ngay def li kay laa ne yee nga wesoon rek benn fa in lam fa in lam al awalu ju jëkk nee fa in lam yastajiboo bi nag moom nga njëkk a jot boo bàyyi ci baqara ndax benn bi ma nga nekk suratul xasas dafa wane ne in lam la woon in ak lam waaye foofu bi nga njëkk jot tam nekk suratul xóot moom da koy taqale du mooy doo bind nu nara in lam rek bind nga xam ne ngay def am sa teg ca laam ngoo sàdd mun nga du ñëw waaw boo demee xasas nag mooy fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabixuuna ahwaahum jooja moo nekk xasas jooja moom dañ koy tàqale maanaam noonu ngay bind ngay bind in door a bind lam hmm. moo tax mu ne wax fasaloo tàqale nañu xayruhu ju bokkut ak moom in lam moo xam in lam la wa an lam ak an lam waaw nee boo weesee fa in lam yastajibu jooju njëkk ci surat xóot foo gisati in lam nekk fa in lam tafaloo fa in lam tafalu wa lam tafalu ak an lam yarahu ahad muy an ak lam ñoo ci mo dang koy takal ngay bin in tek ci lam ak an tek ci lam faslun di benen dog la raw net li nañu bi sama bi sama bil wasli ci jokale te bok na ca bi sama ya murukum. bihi imanukum ak bi sama khalaftumuni al Raf, washtaraw ak bi sama ashtaraw bihi anfusahum min qabliha ci njëkk bi sama yaamurukum xam nga bi sa bon na bu dee ci am sa bi muy yaa ñu bi jika bu yang defee mu nekk bi sa su ci maa toppee na nee na ma wax yépp da ngay taqalee bi sa jéeg maami ñu ko taqalee rek nan ba njëkk mooy bii sa mashtaraw bihi anfusahum bu ñaareel bi mooy bii sama yaamurukum bihi imaanakum bii mooy bii sama xalaftu woon nag moom ma nga ci laxaraaf mu sore nañu laakin na maa waaye ba nga xam ne xat jaa adikk na fil aaraaf ci saarul aaraaf wa aaxiril bikri ak mujub baqara xalaa xilaaf nekk na ci wuute waaye nee na ba waxoon ci laxaraaf muy bii sama xalaftu woon ni ak bi mujj ci saar waqara muy bii sama yaamurukum am na wuute am nañu wax taqale ga bañ koo taqale waaye li ñu ko wax rek say wa ko dañ koy taqale rek mais ñu ko bindee te bañ koo tàggale wasil na nga jokkale xamma xamma xam nga xamma foo ko fekk xan la woon ak maami laajte maami laajte nag buñ cee buñ ko jaree moo xam arafa ko jar moo xam dafa nekk mudaafilehi te dag dag alif ga xamne ne xamma la won xamne ne anu alif gam day dagg rek kon mu xamma ñu anu da ngay tak da ngay takale boy bind xamma ji ngay bind xamma rek ben baat boy def xan ba nopi do def ma da koy takale rek ay ngeen ñu ñu jappalo fiima ak fiima fiima itam fiima ci lan la dañoo jël fi tugal ko ci ma ma moom bu dee laaj tam alif ko day dagg su ko defé kon bokoy bind tam bu def fi takale ko door def ma ko def ñu taqale rek nga def fima fima anta min zikra yit non la nang ko bindé nang ko taqale wa mahma ak mahma fo fek mahma ya taqale mahje ak mami dik mahma ta'tina bihi min ayatin mimma khuliqa mimma khuliqa min lawon ak ma min mimma ana ci lan khuliqa lañ ko bindé mimma la doon may mo alif de dag ko defé na da ngay nga da ngay jàppale mim ma ji def yaari mim rek te sàddagu ñaaral gi waaye bul def min ba noppi doo cee teg ma max ka annama ànd ka annama ka annama uxusiyat bu jooxum lay wax ngay taqale ka anna jeeg maame wa amma ak amma liki amma stamalat xalehi arxamulum sayni amma boobu nga koy sàdd rek benn yoon mu def bul def am bul def am mi mi mara ba noppi teg ca maa déedéet wa ka anna ak wayka annahu laa yuflihul kaafiruuna wayka ji ak annahu ji danga koy taqale mi benn baat wayka anna wayka anna laaha yabsutu risqa moom it way ji ak ka anna ji wayka ji ak ji yëpp danga koy jàppale mm-hmm. yawma idin ak yawma id yawma bind yawma ak id ñu taqalaa ñoom ñaar waaye doo def yawma muy mimara nga door a bind idin déedéet xalaftumoo nii ak xalaftumoo nii maanaam xalaftumoo nii tumoo ji ak nii ji da koy taqale taqale gi nag mooy doo fi bind alif boo fi defoon alif ci gannaaw waaw gi ba noppi maas ko maas ko sukkoon maas ko néeg ba nga xam dooleen la kon su boobaa loolu ak taqale lay doon waaye nag boo fi defut ma wane nañ koo taqale anul zimu kumuha wa antum laha kaarihuuna ñooy moo kumoo jeeg xaaji da koy taqale taqale gi mooy diggante doo fi bind alif hmm. أتهمني آه، خلفتموني خلفتموني هكذا لكن إلى وحي نئس أك نئس هي نئس ما يتقل هي نا إهنجي كده فمي بيان بارك شل نجاجك كالو همو كالو همو هم ومسخ أوسنو هم رجلو وعي سلوان لك وعوجي أك همو قد دوه بند ألف لولا ما يتقل بي سوري كورن تقل ألف دفينك أوزنوهم يخسرون diggante wasanu waaw googu ak xum ji doo fi def alif woo faf woo faf sil waf sil rek da ngay bàyyi faa ko mën a jàngale booy jàngale yow ne moom da nga ko jàng waaye booy firi moom nga waf sil na nga tàqale xadiboo xumoo xadiboo xumoo wakaanoo xum ak wakaanoo xum nee na xadiboo ak xum ba ca topp koy teqale teqale mooy gannaaw xadiboo ci waaw gi da nga koy bind alif gi fii dolli def ca ak kuppandal kanu ak hum itam non la ci hum topé da ngay bind ci gannaaw ak kanu gi alif te def ca ak ku bindal loolu bind hum ji alqawlu li mooy wax ja fil mumal ci lañu mumal lañu mumal moy lañu jengal kay fa rusma nak la bindef ko biya in ci ya aw alifin wala alif aw duunihima wala julul ñoom ñaar li ñuy mumal alif ñu bañ koo jàng xana jang ko e wala fata ñu bañ ko jang melni ma te jang ko me wala ra ñu jang ko re lolu moy mumal lay do lu ñu mumal nak lay lek dañ ko bindé ya mo ya da fay nek alif war ko wala ñu bindé ko alif bu bindé alif ci jubul alif bo xamne da sax ci mbindum sahaba ya nga xamne du doon ko du doon koy aj nak ci dig aw dooni hima wala ci lu ñoom ñaar da ci jubul bu fekke baat ba ñi mumal amul alif gu sax goo xam ne saxaaba yi bindaale woon na ko amul yaay itam am na alif nag waaye alif ga amutoon ci mbindum saxaaba yi gannaaw lañ ko dabaatal boo defee di ko àcc kaw mbaa ñu koy xongal loolu goo alif moom dana ko am waaye du am alif goo xam ne dafa dëkk ci baat bi xam ne kenn du ko àcc kenn du ko xongal déedéet kon la ñu bind mu ànd alif ga ak kese alif goo xam ne saxaaba ko bindaale xam ne kenn du ko kenn du ko xongal mu bañ am nag yaa bañ am alif gu mel noonu xanaa am rek alif goo xam ne moom dañ koy aj mbaa ñu koy xongal yett yooyu la fal aslu lay cosaan rasmu ko mooy sul bind al mumaala lañu mumaal bil yaayu ci yaa li gën a bari moom nee na suñ ko mumaalee moom loola niki alif ba faaw day war yan day war yaa ngay bind yaa fi suuf aj alif ba ci kaw nag loolu gën a bari mis la ineehu mel na ineehu wadduxee ak wadduxee wa yaxye ak yaxye xam nga inneeku da ngaa bind yaa ba noppi aj alif gi ci kaw wa doxee da ngaa bind yanara ba noppi nag aj alif gi yaa gu njëkk waxuñu ko kooku moom waaye yanara gi lay wax yanara googu moom da nga ko bind mu teg ci alif wala wala jolo yaa gu njëkk moom daa bokk ci baat bi moom muumaaloo ko alif nga muumaal te war yanara loolu la bëgg xëyral la siin dara alif xam ne arraa uraa tafi dana dikk min baax di ci gannaawam mag soratal mbir mi nañu kasara fa innahu naka googa bil nekk na ci alif nee na bu dee alif gu goo xam la waral mumaal ga mooy raagu kasara dafa da koo topp bu fekkee googu la nga xam ne raagu kasara koo topp moo tax ñu koy mumaal alif ga kon xamal ne alif la gu saxoon ci mbindum saxaaba ya te soo koy bind doo ko aj xamal ne du ndolleen maa nekkuluñ ci bind ci gannaaw bi ci mbindum ci saama la amee dama hmm. misaale ka déerihim ni ki déerihim wa déeri ak déeri wal abreeri ak abreeri wal jéeri ak jéeri wal fujjeeri ak fujjeeri wal xareeri ak xareeri mboolem yi mel ne yi nga xam ne alif ga raada ca topp gu kasara te raag kasara ga sax moo waral ñu mën koo muumaal xam ne alif googee moom alif gu saxoon na ci mbindum cosaan ma nekk bu ñu aj mbaa gu ñu xongal loolu ba tudd nag ne raagu kasara bu dee ko jàng naxu dana ko xam waaye dañ cee jublu rek raagoo xam daa maas yet ci suuf xam daa maas daa ci suuf ci alxuraan ba noppi alif jiitu ko rek hmm, alif googee des na ko jàngal ci boo koy tudd ma ne yi nga tudd déeri him déeri labréeri man noonu looloo ko waral su fekkoon ne raaga dafa maas maas ka lonk nag wala mu maas maas ka yet ci kaw nag day daal génn ci loolu kon sooba alif ga des ko moomal laakin ho way mo alif gogo nak xodda li ma alif nako ko minal mahzufi mo bok ci lañu asaf fi sitat ci juróom ben dekk na yo xam tu def na len fi xoroo fi ci badi ba nga ni fi xoroo fi ci arafi manam yu melne ye nga wessu melne derihim wala labreeri wala wal jeri wala wal fujjeer yooyu ngay gis moom dafa bari lool ci alquran nga xam alif ga fa nekk saxaaba yi bindaale woon na alif gu sax la te la tax boo ko dee jàng di ko muumaal ma di ko jàngal la tax boo ko dee jàng di ko jengal bañ wax jaari ah, te wax jéeri bañ wax fujjaari te wax fujjeeri loolu mooy muumaal gi dara ko lu may raaga nga xam ne moo ci alif ga te maas naas ko yet ci suuf ndax jëmmi baat booba sax bu ñëwaatoon feneen maas lu bokk te yet ci suuf ni ki haadihi naaru sax kenn du ko muumaalati ni ki ci misaal boo xoolee daarul xareeri moom def nañ ko ko teewu bi isal xaraaru moom kenn defu ko ko te looloo tax ci béréb nga xam ne moom ma raaga dafa maas ri waaw su des na koko def loolu lu bari bari la ci alxuraan mu ne nag am na juróom-benn yoo xam ne noonu lañ mel nga xam ne alif ga raada caa topp alif ga boo koy jàng danga koy jengal waaye nag alif ga saxaaba yi bindaale wu ko woon yooyu nag mu la wax benn ba mooy alxafaar ja nekk ca sóortu xaafir lu mel ne ilal xasiisil xafaar xafeer la ñuy wax di ko muumaal alif googee nag xam nga ni ri topp na ko waaye alif la guñu aj te sewal ko mbaa ñu xongal ko saxaaba yi bindaale ko muy benn ak addu beerihim boo gisee addu beerihim alif ga ca nekk bokk nañ ci mbindum saxaaba ya dañ koy teg ci kaw xongal ko mbaa sewal ko nga bañ koo jaawale yële nga weesu kon ñaara nga nga boole ci bu séer lu mel ne waxala bu seer yi ma koy jaawatun alif ga ca nekk amatoon ci mbindum saxaaba ya waaye nag ri jee ko waral ji ci kanamam ñett bi ko ñeenteel mooy wali bikeeri bil xashi yi wali bikeeri alif gi nekk ci li bikeeri danga koy xongal mbaa nga aj ko waaye amatoon ci mbindum saxaaba ya des na ko jengal na boo ko dee tudd waaye ri ji ci moo ko waral ak aseerihim ni ki fahum ala atharihim ah, yuhrauna jooju ngay gis alif googu saxaaba yi bindaale wu ko woon te ji ci kanamam moo waral boo koy jàng di ko muumaal di ko jàngal baatub diyeer itam ni ki fa asbahu fi alif googu ci nekk saxaaba yi bindaale te rëy ji ci kanamam moo waral nga di ko jàngal boo ko dee jàng